Abdoulaye da c'est un homme boo xam ne dépassé na ay naa tudd diw ak du ma tudd diw xam nga ci lan la nekk président Macky Sall la gis waxtaan ak moom ñun ay ñooñam ñu waxtaan ak président suñu biir ñu waxtaan mu expliquer le retrait de sa candidature pour s'engager à la candidature euh, pour s'engager pour la victoire en 2025 c'est pour la vague est-ce que c'est pour la victoire d'un rat est-ce que c'est pour la victoire d'un d'un d'un chat est-ce que c'est pour la victoire d'une autre personne mais c'est pour la victoire du candidat donc je pense que li gën a am solo moom mooy que Abdoulaye Daouda a retiré sa candidature ñoo na pour jàppale le choix du président dañu war a def nii te bañ a nekk fii naan ay tudd na di maintenant moom Abdoulaye Daouda ak Abdoulaye euh, Amadou man amado personnellement il m'a Ablaye Daouda ak Amadou Ba mais ils se verront suñu gisee ñu waxtaan mais jusqu'à présent ñu gis naa sax dans la presse benn moment ñuy wax gise nañ nangam nangam waxtaan nañ ils se sont vus avant ñuy def choix yi parce que Amadou Ba était venu voir Abdoulaye Daouda à son bureau au conseil économique social environnemental c'était juste l'heure de la prière du vendredi juste ah, avant ah, ah déglu ma juste avant Ablaye ne ko waa ah, man de damay dem juma effectivement ñoom ñu génn doon ne ko vingt heures dinaa ñëw sa bureau Ablaye s'est déplacé dem bureau Amadou Ba à vingt heures il a fait là-bas plus d'une heure. le vendredi avant le choix. non non deux vendredis avant le choix pour te dire que ils se sont vus avant le choix mais après ils se sont pas rencontrés c'est vrai que tase nañ au niveau de la cérémonie au Méridien mais ils se sont pas rencontrés toog waxtaan. donc c'est pour dire que euh, waxtaan yi nga xamante ni moom la Ablaye doon wax président de la République la doon waxtaanal et Ablaye a expliqué la a répondu Ablaye waxtaanul ak Amadou Ba ba fii may waxee yow waxtaanuñu hmm. parce que ça aussi il faut que ça soit clair mais ils se verront ils vont discuter parce que jàpp naa ne aujourd'hui Ablaye a retiré sa candidature pour s'engager aux élections euh, euh, pour la victoire en deux mille euh, vingt-quatre mais pour la victoire de qui en 2000 mais de Amadou Ba. voilà mais pourquoi pourquoi tu as du mal à le dire. non mais c'est que mooy mun rek yow seytaane nga. <laughs> ni kii seytaane la xam nga il faut que nga wax xam ne ñun nekkuñu ci affaire u caaxaan nekkuñu ci ay affaire u tudd na ko def na lii nangam nangam Abdoulaye Daouda est un grand homme Abdoulaye Daouda n'est pas dans ce détail et je pense que c'est après que les gens ont dit voilà Abdoulaye non mais attends il faut que les gens arrêtent nous si on s'engage c'est parce qu'on s'engage parce que nous on était en train de travailler autour d'un projet pour dem aux élections présidentielles bi ñu demee ba renoncer à ce projet là à cause de l'appel du président ni ñu waxtaan ñu xool réew mi les euh, problème sécuritaires yi ñu wax ko wax li nga xamante ni jàpp nañ ne division la mën na perdre le pouvoir mais nous tous on a jugé nécessaire de revenir donc ensemble mën a gagner en 2024